fajkat yi Chaba remercie ses partenaires. Moudou Gay artiste peintre. Sao l'atelier. Chaba. se gargoor bi xew fi cof kay daje mer caba dafa doonu yaayam bari fem mom togg amul morom daamu na kadi ci biir waañam set na sell kadi loo bëgg mu nekk kadi moo fi gën woor kadi taamu ko are mer caba moom da jar taxaw waay waaw waaw chaba nyipura nyipura amumora ne mer chaba nyiputa amumora yëngaloo xool mooy. waaye ana Cheikh Gueye. ah garaaw mi ngi fi. ah. lu ma ko de. Eh, ah suukar bi toog na. c' est bon. loolu maaleykum salaam. waa ah. mbaa xeboo li nga sant. bàyyi tooñ mais nga defaral ma foofu noonu mburu tey moom yow laa dénk sama bopp merci. benn sœur <laughs> est-ce doo bàyyi ma defaral la comme que pare naa. non baax na wax naa ko mbeng ba pare. yow ñàkk nga kersa di deew fajar dikk sax doo ko tal. yow ñàkk kersa nga ko gisee. ger ngay war. Bintu yow man ak yow level yi bokkul tolloowuñu niveau yow sama raq nga mu defanteeg yow ah gaawal balaa maa tardé. li la reporter naar bi naan yaakati yaakati watakal yaakati Nampalys Sadio Messi. yaakati góor léegi reporter moo dese quoi yow. daman ni bul moo kobos wala ngay xamni fi neex deex nga ñew fi suba tel fi lay toj lu ñu jara xew. mercato derby. <laughs> akati ça va. ça va dégg bàyyi loolu. kati naa def. yaa ngi sañ seen yéen <laughs> naa def bind seetaan naa def rambaaj mu ngi dox. te dama la joxe su yobal dina la bat seuk man dama tal ak yobal man man mi yow nekk ci jamm ak sa nga na ma yobal ko fi xaar me nga defal ñu ndek yow dañuy dem. Ah, seri Serigne. Hmm? dañu toog ba si kanam. Ah, nga gis. non yow bébé loo bëgg yàlla jàmm yow wala neexee ma yëg ci kaw mbaar mi ndekkee foofu nee ma yëgal nee ma yëgal rek moo yor waay dama ko boo amee sa soxna da ngay jóge laa ida ko jóge sax man kii nee naa ko man yaay sama madd man maay sa xoox waaye ngir yàlla boo ma maccee ba ma sàlli bul ma sànni bébé bul ma sànni vraiment nak tu dois faire quelque chose pour moi. ah yaay booy nag loo bëggati. laisse-moi le temps de réfléchir. Wa waxal nak. samay xarit yi laa bëggoon invité. waaye jor nak man nak li ngay def ni neexuma Bayil saa yoo demee sa école naan sama yaay dafa mën tok. Té nu man may sa yaay. <laughs> te loo ci xamul nak eh. tay man may dugg wañ. def sama nukus bu toog sama mar marinaat bu toog te bu ñu lekkee ba pare mama defaral leen ñaan ñarum mew um. bu am glaçon nag waaw d'accord ba booba waaw d'accord lan ngeen bëgg bari ay jom te la fi yara wure sa jabar yàlla parce man maa ngi ñëw dem Ndiémé yow moom kontaan naa ci yow bu baax a baax a baax li nga nekk nii yal na yàlla barkeel sëy bi may la njaboot ju barkeel nga yàgg fi toog fi ba muur fi sa doom inshallah di ko jàpp foofu la de jigéen dëgg da ngay bàyyi sa kër nday bàyyi sa kër bàyyi ñëw sa kër jëkkër géré dëgg neexul bul mel ni ñoom Isa wara Isa Ismen déedéet déedéet kan bon booy xam nga ko Isa wara isa war a woji muy première jaam bu jigéen bu ñu jàpp Afrique kooku moom kese moo daan bay tollu Amérique gi avant di ñu yóbbu ñeneen ñi. non loolu garaaw kii dinañ ko rey de. laajuma la yow lu si sa man. doo maanu ku la duggal ci waxtu. eh eh eh le client est roi. ko ma la wu dinañ la ray yow lay wax Fi. place mer tiabala ku ñëw ci nga bok ci nga bok né am nga ci kàddu ah. <laughs> Full money. Mambal <laughs> Mambal full money. Mambal àdduna alal du nii de alal saxul de Mambal la bu ñu ba Macky Sall wo opposant yépp ni na ñëpp ñëw ñu doon benn ndax Sénégal ñun SA ñooy champion d'Afrique jamm ak salam ñu wër nga wara a mo wo meng mi ci jamm ak salam Mambal la. Mambal xanaa Macky Sall du sa xarit. d'accord d'accord d'accord bëgg naa ko jappalé, bëgg naa ko jàppale ak garab bii ma self. woon nañ benn taxi Wo mi d'accord bëgg naa ko jox taxi. mais jikko ak borom wax ba ci biir bàmmeel da ngay waaru quoi. maanaam. yow kenn laaju la lu tëj sa damay woo kati de. tey xëy mi neexul ci moom de. ay waay bàyyi leen sama njëkk séeri bi. sa njëkk eh, séeri. moo eh, eh, yaay défendre kii yaay défendre kii kii suba mu xalab la kii kum dogal kum dogal tubay ngembalaa lay xaar. Bon, euh, disons, qu'est-ce qu'il y a à manger euh, De la beurre, euh, mayonnaise. Et qu'est-ce qu'il y a à manger l'autre Chocolat. là, moi. Et il y a du mayonnaise après de la beurre. Chocolat tartiné. là, je m'en vais. Ok, qu'est-ce qu'il y a à manger, s'il vous plaît Il n'y a que du vent. Les Mais j'ai mon argent, je veux manger. Mange ton argent. Il n'y a rien du tout. Eh, dès qu'il dit sa non, bi di mel ne bu non non

on a fait presque cinq mois xawma lu mariage di saf sëy bi awma ci benn yoon bànneex su guddi jotee sax su ma la tegee loxo dam koy teggi fóon bi gën a ndaw mënuma ko am ci yow je sais que nëbboo ma te it am na lu taxoon nga bëgg a sëy ak man mais xoolal nit du def lu koy gaañ Ibu dëgg la maa la tooñ te maa ngi lay baalu àq bu baax mais pour être franche avec sama bopp man maa pareegul pour jox la ko yow. waaw léegi loolu ñu tas sëy bi gën ko yomb. yaa ko teree neex. Votre série revient après la pub. Optima ngir dund faire féex nos palais. Optima nous ci gis seen Ndiaye <laughs> non business business business Mame eh métier ba waaw Balla yaa ngi business rek nga wax rek ba mais partenaire yi laay waxal yow tamit waa partenaire yi ak business bu mu ngay defar dootul sa coppee rek benn taxe mu dawal métier ba man dama am partenaire mais xoolal sa doom bi nii mais xoolal kanam gi amul sax cicatrice xoolal sikki moom bi ni nga ko pañee mais kii français la kii naa jox sama taxi kii parewul suma ko joxe sama taxi daf may morole yakal ma man business la man kana la quoi. non mais jaba man sama sama fii du ma jox kii. yang sama baal li dong ko taxawal. suñu caatu yaay mi caatoo xale la xaritu yaay xamul liggéey bu métti. moom nay nooyeen. nooyeen bu nooyeen la bëggul. yang ya. ya, seen wax ju bari yëpp fan waxuma ak eh, Serif man ma Mbengue mii ya waxal pour moom mu jox ko man mii ma sama taxi jox ko Mbengue mu koy waaw loolu dee dem safara moom moo gën a xalaatuma ko. man de dama xam ne liggéey yëpp bu fi jeexu mu des lu dul taxi man Balla man ma war ka dawal moom. yow yàlla yàlla nga ma def kuddu café. xam nga yéen depuis sànq yéen a ngi wax maa ngi leen di déglu da ngeen foog ne man mënu ma gérer taxi. yow ngay français kii di français <laughs> kii di français. mais Mame Balla dimbalal capitaine biceps moom lépp ci biceps yi la ko yaakaar dee baar sax dawal. capitaine lan yow déglu nga. capitaine biceps. kii réew la de. Ah. Bintu Amal yar kii sa mag la respecté ko. an la leen xam naa ko ci suñu caatum yaay mii mujjee judd mii dañ ko neexal moom neng neng la xam ah bi ci ma ko ma fanaan sama néegu yaay. Eh. <laughs> waaye gis nga la gëm. yooyu la tàmm ay bébé neexal yooyu doon waaye yow bàyyi ma ñun xam nañ lépp. yow mën ngaa gis Mame Balla taxi bu ñu décapotable. non non mënuma ko. yow yaa ngi nar a njëkk sa taxi la nar a njëkk a doon xulleel ba joxo sa taxi bu fekkee du ko décapotable nekk ci dëkk bi di ko bolowee jaay taar la xam naa ko yow kii loolu dimbalee dara ñun xam nañ lépp. yow magum jëmm nekk sa biir kër yor sa jabar. mooy joxe dépense mooy joxe góor da ngay ñàkk jox sa jabar fayit. eh wuy ma eh Toch eh eh wuy ma wuy ma yaa ngi eh.

seen premier arme moy rouler air pour ñoom bu ñu rouler air da ngay tiit da ngay ragal day dama lay jox dama lay jiixi dama lay du ngay defee dara. alaykum ay way yàqu ay yàqu na. Cheikh Ahmed ragal kii ñoo yaakaaru kii dafa dee fii kii deewul kii lan moo xew fii. Bintu waaw. Mahfouz nga toog demal nga to ñi dañ laa ragal soit dangay dee yow tamit nag wala nga dekki. lan moo xew. ah ñoo yey kat doom. soo mel ni musée film lan moo xew fii. te nit ñi waa yow. Kadi te wóor. gisee gargot bi xew fi cof kay daje